asalaamualeykum ayuha almushahiduuna alkiram fi kulli makaanin bokki jullit yi bokki taalibe yi bokki réew mi bokki biti réew jàmm ñëw na mbég mi ñëw na xéewal gi ñëw na sëñ bi woote na sun borom dafa wax ne yaa ayuha allazina amanu stajibu lillahi wa li rasulihi isa daakum lima yuhyikum borom jamono woote na jëme ci mbégte jëme ci luy xettali bindéef yi muy bisub xasida boo xam ne bii ci luñ mas a xam ci diiru ban fàttalikook tey journée xasaayit boo xam ne bii borom Touba moo ko wooteel boppam fii ci Touba loolu daal képp ku ko fekkee war sant yàlla bu baax ndax réew mi soxla na ko bindee fi soxla ko adduna soxla ko ci anam yëpp kon nag na ñëpp jóg ku ñu ragal sa ginnaaw na nga ragal sa bopp sa biir dikki leen wuy si ci wooteb sëñ bi bu ko defee aajo yëpp dana faju mbir yëpp dana jub noo gi ñaan ci barkeb sëriñ tubaa sëñ bii ko woote di cheikh Mouhamadul Mountakha ak sëñ bii mu ko teg ci loxoom di rakkam di naayibam cheikh Hamzatu Mbakke ibnu cheikh Souhaïbou ak rakkam yu baax yi ak bokkam yu baax yi ak kuréel bii nga xam ñooy xisbu tarxiya sëñ Yuusu ne ci bopp bi ñu jox ko liggéey bi dénk ko ko ak mboolem taalibe sëñ Tuubaa yi foofu waay mën a nekk na ñëpp ñëw wuy si sëñ bi te defee ko ni mu ko bëggee incha allahu taala lu waay bëgg xaj na ci yàlla nañ ko fekkee te am ci ngërëmam bi jaahil xadim wa izati maqdumihi sallallahu alayhi wa sallam kon nag ñëpp nan waaj wuy si bis boobu nga xam ne mooy fukki fan ak benn ci weeru mois de août war a dajeeg benn fan wala ñaari fan ci weeru muharram yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm te sëñ bi am ci li mu bëgg bu amee li mu bëgg danañ am li mu bëgg wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu